dañoo bëgg nekk maire pour defaraat gox bi parce que boo yoree maire ci àndoo administration bi doo def dara boo yoree maire bi bëgg nekk président amoo jotu waa Dakar yaa am ci yeneen gox yi te ñun sonn nañ ci nit ñuy dunde moo tax bi ñuy jóg bu ñu seetloo société civile lañ njëkk a seeti parce que jàpp nañ ne ko ñu bokkuñu ci par par loolu bokkuñu ci xuloo bi naxuñu nit ñi ñaari at a ngi nit ñu koy wax am na ñu jàppoon ni que ñu dañuy fo mais dinañ xam ni ko foofu am na ñu jàppoon ni que dañuy wax rek kuy wax rek doo présenter programme ñun ak ñi ñu àndal wax nañ Dakar fan lañ koy jële fan lañ koy yóbbu nan lañ ko fay yóbbee ak nan lañ fay eggee ak lan moo ci mën a nekk ak lan moo ci mën a nekk loolu du liggéey ñaari weer du liggéey ñetti weer du liggéey at ñiñ ko seqal dañ ko validé kii boo demee da lay wax Cambérène lii mooy soxla kii boo demee mun la yox lii mooy soxla loolu rek lañ def defuñu leneen yéen nag mën nañ jàpp ni que yéenay ndawu réew mi tey yéenay ndawu réew mi parce que li ëpp ci réew mi comme yéen lañ toll jafe-jafe yi ngeen tollool lañ am saafara mi ngi ciy am bu ñu rek dëgg ca yàlla tam jéego yu mel nii am na yeneen yuy am yoo xam ni njiitu réew mi moo ko commencé donte dajagul fépp mooy dëgg tamit mais am na jéego yi ciy am ci lii ñu jëm bu ñu leen ci woo ci xuloo ci xeex ci parparloo ki leen bëgg a jiite na leen wax lan la def lan la bu fekkee ni nga def fi nekkoon na leen wax lan la def da ko xam d'abord ki leen bëgg a jiite lan na leen wax lan la fa nar xuloo bi teesante bi ak xëccoo bi na doon ci loolu yéen ay boroomi xel ngeen bu leen nangu dugal leen ci yoo xam ni après mu judd kenn xamul mën nañ xëccoo ci jàmm xëccoo ci dëgg xëccoo ci ngor xëccoo ci njub ku leen jàngal loolu la leen war a jàngal ku leen jàngal leneen ñu ngi leen yi sànq parce que moom ci boppam du ko def li ñuy wax ni luñ xam la parce que nag tamit am nañ jaar-jaar boobu am nañ jaar-jaar boobu ku leen bëgg a jiite na leen wax lan lay def le débat. continuer le débat ci bilan yi le débat ci offre bi la mais ñëw rek dama leen di jiite topp ñu ngi leen di remercier di ñaan lii ngeen commencé yàlla na gën ci yéen yàlla na résultat yi seen parents di xaar ci yéen am fii ñu toog nii jombul kenn ay at ci ginnaaw ñu ñoo toogoon fii ay at ci après yenn yee toog fii nii ñeneen dem toog feneen àddina ku ci nekk ci li nga toll boo ko tolloo def ko ci anam bi gën a rafet boo tolloo ci xeex xeexal boo tollee ci wax waxal boo tollee ci taxaw taxawal parce que kenn joxe na yàlla da koy joxe fii fukki at ci ginnaaw ñu muy fàttali sama benn papa bu mu xam ni ma bi ma kook bi may xam xëy na douze laa am xalaatuñu woon egg si fii sama papa boobu ci boppam xalaatuñu woon egg si fii suba kenn xamul fan la ñuy egg donc jombul kenn mais li ci am solo mooy am taxawaayu dëkk bu ñu subaa wax ji mënta ñàkk ci société lañ toll boo xam ne nit ñi dañuy wax rek bu leen féetewoo wax féetewu leen jëf day yàgg rek mais day am dëkk yëpp mënuñu la tëj kàddu bi te duñ la ñaan nga wax formateur parce que ci ay outils informatique ci ay réseaux sociaux ay capacité yoo xam ni day jox nit ki mu am accès ci réseaux sociaux yi ngeen di joxe bu ngeen mënoon boole benn module confiance citoyenne tuuti ci ñu ngeen di former pour que yenn wax yi ñu dépassé ko wax ju ñaaw rek lawul dara wax ju ñaaw ay sos ala kulli aali dañ parce que yàlla moo doxale noonu ku fi def lu bon di nga gis ni que moteur de recherche yi dañ koy conserver mhm. fii ak ay décennies donc nañ leen xoolaat suñu bopp bu leen nangu ñu la leen foo xam ne ñoom seen bopp jëmuñu fa seen njaboot jëmuñu fa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni que euh, programme bi ñu proposé wax dëgg yàlla bu sérieux wul woon je am na ay am na ay sites yu crédible ci àdduna na ay sites yoo xam ne ñu bind ci caaxaan alternative économique ñi xam ñi xam monde économique xam nañ ni ko duñu bind ci ay caaxaan ñooñu buñ demee ay reprendre ñun suñu programme waaye ko wax dëgg yàlla liñ def lu crédible nañ woo nit ñi ñu xool ku ci xalaat loo xam ne méngoowul ak loolu boo ñu tontoo ñu on est ouvert parce que defar rek lañ bëgg encore une fois ñii dañoo bëgg seen carrière personnelle ñii dañoo bëgg xeex ñun dañoo bëgg defar moo tax ñu ànd ak ñu bëgg a defar merci beaucoup ñu ngi sant. salaamaaleykum mbokk journaliste yi salaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi présenté wu tudd Mamadou Gueye nekk candidat à la mairie di soutenir le candidat Mame Mbaye Niang à la ville de Dakar aussi sama ginnaaw boo leen xoolee di ngeen gis Libaas Dan bi nga xam ne candidat la à la mairie de Cambérène ñëwoon tey fii ànd ak monsieur le ministre ci CREPS bu Mermoz pour octroyer des bourses d'études boo xoolee réew li ngay ñu ko doxal éducation mënoo ko jigéen ñi donc njàpp na ne que réew boo koy defar da ngay tabax te booy tabax doomu aadama bi nga war a njëkk a tabax ci lancé boobu nañ nekk ba octroyer des bourses d'études te gis ngeen ne léegi nii jox nañ ko ñu ngi ko war a jox di ko ñaanal suñu borom lépp lu muy bëgg ci réew mu defal ko ko ndax mi ngi liggéey réew waaye muy ngi liggéey le président Macky di faire appel à toute la jeunesse de Dakar ñu ñëw jàppale ko ci programme bi mu am parce que gëm nañ ni réew fu mu jëm nii mbirum programme mbirum xeex bi mbirum xuloo bëgg nañu fësal dekkalaat valeurs yi nga xam ne moom la ndaw ñi war a fësal dekkalaat njàng bi nga xam ne ni gëm nañ que ne réew buy dox xam-xam moo ko war a doxal donc loolu rek la woon di bu baax a baax a baax ba nga ko def discours politique. bourse yi non bourse yi. waaw bourse du ñu wax nombre parce que ñu ngi fi parce que dafay nekk pour jeunesse mais xam nañ ne bourse yi yombalal na day accompagner étudiant bi à ce que mu mën a am école. am na ñu bëri yoo xam ne tey orienté wu ñu leen dans les universités publiques ñu war a dem dans les universités privées te il faudrait que ñu accompagner leen donc ci lancé boobu kese. ci la nekk ba gunge leen léegi bourse yaa ngi fi képp koo xam ne ñëw nga am nga bourse ñi nga xam ne ñëwuñu am nañ voie boo xam ne bu ñu fa jaaree par le biais de euh, Maodo dinañ mën am bourse facilement. en français. en français. non c' est des le ministre en parfaite collaboration avec le groupe Wakana et le CEDEPS. en français. d' accord. donc nous de l'octroi de bourse qui a été initié par le ministre chef de cabinet du président Macky ça révèle d'une très bonne initiative. Nous remercions cependant l'ensemble des collaborateurs de la coalition Sénégal 2035. Nous remercions le candidat Libaskan Diop qui est aujourd'hui ici présent, qui est candidat la mairie de Cambérène, et remercier l'ensemble des partenaires, notamment Wakan, le groupe Wakan le groupe. Les critères et les bourses Les sont des, des accompagnements. Le ministre est en d'accompagner les élèves ou bien les étudiants qui veulent euh, intégrer et leur faciliter à pouvoir avoir une, une, une très bonne formation. Cela revêt de blesser la conscience collective dans le but de l'améliorer. Je présente Momoru Gueye, mandataire de Sénégal à Dakar, candidat à la mairie de la, de, de commune de